صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق في كواميق gouverneur jiite délégation bi ak préfet bu Kaolack central ak mboolem service ci région bi ñu ñëwoon uy medina ci bunt bi nga xam ne ci lañ daan jaaree di ñëw ci liggéey gàmmu gi muy comité d'organisation bi nga xam ne ñu ngi koy wax commence te Baye Mamoun sa doom nekk ci bopp bi ak ñi ànd ak ñëpp ci Medina di ci yëngu ñi demoon di def liggéey bi nga xam ne mooy li aju ci gàmm gi CRD bi tey def nañ liggéey bi ba pare gouverneur ànd na kilifa yi ñu dem xooli esplanade bi léegi li ci desoon mooy mu jaar fii nuyuwante yow safuwante yow mu ngi ci yoon war a jëli service bi comme ni mu ko waxee woon Dakar dañu jox Baye Mamoun rek mu leen kàddu gi del si ci yow alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayiduna wa mawlana muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari azim euh, sëriñ bi sayidi moolaay xaadimul umma samiyu mawlana muhammadul maahi salallahu alayhi wa sallam sayidul xalifa ñu ngi lay ziyaara ziyaara bu tedd bu dëppook sa wàccuwaay ak sa maqaama sëriñ sa bàyyi mawlana cheikh ibrahima radiallahu taala anhu ñu ngi wax ci kàddu yu néew sàkku mu ànd ak teggin euh, ci komaaf ci seen ndigal def nañu waxtaan bu yaatu tey ak service yi Kaolack yi ci njiital monsieur le gouverneur sa xarit sa doom sa soppee muy teew ni sa kanam muy euh, monsieur Ousmane kan ànd ak préfet ànd ak mairie bi ànd ak service yi police ak gendarme ak mbooleem service yi nekk Kaolack waxtaan nañ solo cahier de charge bi sollicitation yi nga xam ne aju na ci gàmm gi comme ni nga koy waxee waxtu nekk yàlla rek moo la itteel yun salase moom moo la ñor waaye lislaam bi bu jëmee jullit ñi kanam bu jëmee taalibe kanam lu dalal gan yi ci jàmm ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm gàmm gu mucc ci ayib wax dëgg yàlla depuis bi ñu defee CDD bi tey lañ def CRD bi préfet ñëwoon na def liggéey bu rafet tey monsieur le gouverneur ñëw na moom it def liggéey bu rafet kon loolu lañu doon wax ci tënk rek ne waxtaane nañ yépp lépp lu ñu xam ne soxla nañ ko mu jaadu te jëm ci askan wi jëm ci taalibe yi wax nañ leen ko ñoom it rafetlu nañ ko jël nañ ay engagement yoo xam ne ah, dalal nañ suñu xel te yi at yi paas itam daan nañ góorgóorlu seen i engagement kon daal sëñ ci gàttal ñu ngi leen di gërëm bu baax di wax ne ñëpp sa njaboot lañ ñu ngi jéggalu bu baax ci kàddu yi di sàkku sa ñaan mu ñeel gouverneur ñeel préfet ñeel ñu fi mbokki taalibe yi ñeel komaaf ñeel sa njaboot yëpp ñeel mboolem umma islami bi esplanade bi tam nga xam ne sa itte la sa xalaat la sa ndigal la yàlla def mu yemb yàlla nanga ko ubbee jàmm dalal ci jàmm gàmm ci ay at ay jàmm ay ati ati at bu ànd ak wér ak quwa ak tawfiq mi biti baay yëpp mat ci yow ci jàmm ak salaam euh, président Baye Ciss euh, fekkee na réunion bi tey moom it monsieur le gouverneur jox na ko kàddu biñ paree réunion bi wax na ni bëggee ci service yi ci ñu taxawu ko ci bés ba ñoom it nangul nañ ko lim sàkku ñu fa jógee ànd nañ ak monsieur le gouverneur dem ba ci esplanade bi nag Cheikh Niang sa doom sa soppe ak sëñ Aliou Niang ak mboolem service yi sëñ Aliou Niass mu Cheikh Ahmed Dam euh, tayib ñu taxaw ñu xool lépp dugg fépp rafetlu ko kon nag ñu ngi lay gërëm ci taxawaay bi ngay taxaw ci pays bi waaye xam-xam nga njëkk a jiital lu jiitu ay tabax ndax sa bàyyi ci loolu nekkoon joxe xam-xam nit ñi yar leen waaye tam yaa ngi dëppook jamono di digal xale yi di defar bëri wan ñu tamit ni ñu tabaxee xam-xam noonu la ñu war tabaxee place bi yal na nga yàgg def ay sémb yu bëri ci Medina ak ci pays bi maa ngi jégalu bu baax sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Cheikh Mahi ñu ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér yàlla dëgëral la. bàyyi la ci kanamu njaboot gi ba naal yi sa mag yu baax yi naaloon nga mottali ko ba yeggale say naal sagu lislaam bi nga sagu senegaal nga waaye sagu région de Kaolack nga bërki démb dama toog gouverneur mu lay topp ci sa tukki kamerun bi mu ne ma ak a neexoon ma mën a tëggaat sëñ Mahi ba mu am 18 ans ma ne ko moo ne dem naa fa mu ne ma yow dalay gis ci boppam ci yow ci ak ndawam ndax dafa bëgg ko ambitieux dafa bëgg ko ñeme li muy def dafa bëgg kuy sàkku xam-xam ma ne ko sëñ Mahi seere na loolu ci yow kon ñas ñoo ngi ñaan ci yàlla ak yonent bi ak seexal islaam sa baay bu baax ba ak seexu tijaan ak rasulaay sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla guddal sa fan. di la seedeel ci sa doom ju baax jii baay Mamoune ci taxawaay bi mu am ci liggéey bi nga ko dénk waaye ci taxawaay bi mu am ci wetu gouverneur 4 avril dafa ñëw seet si gouverneur ñu ne ko daa jëm këram mu ne dama koy xaar ba mu ñëw bi mu ñëwee mu ne ko li ma indi leen rek la mottali administration kóllëreem ak seexal islaam waaye teewal fi sama baay bu baax bi nga xam ne moo wuutu seexal islaam ñëw timit di la ñaanal ngir nga mucc ngir nga yéege ngir nga kawe yaakaar naa ne loola dal na ko tey jataayam bii dafa ñëw di la tàggu si ndax yaay baayam jataayam bii dafa ñëw di la tàggu si ndax yaay sëriñam jataayam bii dafa ñëw di la tàggu si ndax su nammee rasulaay sallallahu alayhi ci yow la koy toqantale mu di la wax ne rëccwul ñëw gi mu ñëw kaw la jaar na fi ñaari yoon waaye ne del bi mu fi del si nii rëccuwul lu mu fi jaare ndax say ñaan feeñ na ci moom sag njaboot taxawaay biñ am ci moom feeñ na ci moom say taalibe taxawaay biñ am ci moom feeñ na ci moom ndax jotagul benn intervention bu jugee Médina Baye jëm si ci jugee ci yow jëm si ci moom ngir mu war cee taxaw mu nekk lu ko të muy lay ñaan di la dénk préfet bii nga xam ne moom la fi bàyyi ak préfet ba muy bàyyi Nioro ak bi muy bàyyi Guinguinéo muy raison bi muy ñetti département yi di la dénk sous préfet yi nekk ci arrondissement yi nga xam ne ñoo composé région bi waaye di dénk chef de service yi nga xam ne ñoo ko jàppale ba tey mu am promotion bu toll nii jëm ndakaaru waaye di la dénk tamit mboolem population Kaolack xam na yaa ngi ci ndax yaa tuddee sa bopp xaadimul umma te ba nga ko waxee ba léegi gisuñ keneen ku ko wax waaye jëfewoo jëfoo jëfoo lu méngoowut ak moom nee na muy sàkku sa ñaan mu jiitu ko ndakaaru su demee sa ñaan googu gunge ko ba fu mu mënti yegg ëllëg lu mu am yéene ak lu mu am bëgg-bëgg war koo defal njabootu seexal islaam war koo defal lislaam bi mën koo def nee na daal ñas mu ngi lay dénk boppam bu baax a baax a baax a baax mi ngi fasanteeg yow kóllëre bu baax a baax a baax a baax nee na tamit ci cant googu dañu ci dugal mbooleem kilifa diine yi nekk ci lislaam bi yëpp ndax xam na ne sa toogaay bii mooy toogaay Cheikh Mouhamadul euh, euh, Muntaxa sa toogaay bii mooy toogaayu Serigne Babacar Sy Mansour ndax jëfe nga ko waxee nga ko doxal nga ko ci lislaam bi ndax waxoo ne man mii may maay maay xaadimul Medina Baye mais maay xaadimul umma nga wax nee na loolu ko ñor lool te da koy gis ci yow nga di ko doxal kon nag nee na mi ngi lay ñaanal ñas yàlla mi nga xam ne moo mën a sàmm yàlla mi mën a aar yàlla na la aar nee na yàlla na la yàlla taxaw yàlla nga tase ndimbalu suñu borom waaye yàlla nga am gërëmul seexal islaam ak seexu tijaan di la dénk kii nga xam ne gan la di délégué senelek di doomi kawlax di taalibe ci kër gi di Assane kamara fii nag ku ko jox cër yàlla yéegee la ndax fii lañ annoncé Abdou juuf premier ministre am ci saalu alaaji Abdoulaye mi bokk ak moom wenn waajur muy soxna Astou Sarr ak Cheikh boobu moo nekk gouverneur Kaolack ñëw di waxtaan ak alaaji Abdoulaye ci saal bi ñu woo ko téléphone na ko dañ laa war a def premier ministre du Sénégal kon Cheikh al Islam du samp luy daanu du xam kuy dellu ginnaaw kon kan ñu jox la nga tàggatoog sa baay. mu nekk bis boo xam ne bisu mbégte la ci moom waaye bisu wéetaay lay doon ci moom ndax wéttalam nga woon mu nekk bis boo xam ne ci yow tamit bisu mbégte la ci yow waaye bisu wéetaay lay doon ci yow ndax nag man xam naa fi nga ko teg ak fi nga ko def ci sa xol ndax boo demee ba ne bu ma sañu bu ma mënoon bu ma ko mënoon a defaraat dinaa ko delloo 18 ans ndax li muy liggéey ci l'islam bi di ko def ci askan wi bu ma ko mënoon a delloo 18 ans def ko kon xam naa ne ku sori ci yow la. asalaamaaleykum wa sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay de moom daa waroon introduire rek jox ma kàddu gi waaye daa mujj xabaabal te ni ko waxee rafet na ba nga xamante ni damay ragal teg si dara muy <laughs> yàqu waaye jàpp ne li mu wax lépp rek li nekk suñu xol la nit la la feeñal donc wax ko noonu ñu taataan ko dégg ko euh, li si des rek mooy xanaa Euh, ni ko sëñ Mamoun waxee sànq liñ fi taxoon ñëw si suba muy liggéeyu gàmm gi euh, tam ni mu ko waxee mu demee noonu comme niñ ko daan defee euh, saa yuñ dëgmalee gàmm gi ñëw fii kër gan toog ak waa commence bi nga xamante ni moom la jiite taataan li nga xamante ni ñoo ngi koy xaar si administration si wàllu liggéeyu gàmm gi chef de service bu nekk dala la ca war également nga joxe tontu ya ak na nga ca war a taxawee. si li ëpp euh, xel mën na dal parce que lépp li nga xamante ni si wàllu région bi la euh, mobiliser nañ ko incha allah pour gàmm gi jaar si anam yu mucc ayib yi des te mu xam ni Dakar foog mu dugal si loxom niveau national bi leet yi ca war woote yi ca war incha allah ñoo ngi ci en attendant réunion nationale bi nga xamante ni ministre bi dina ko jiit di feeñeelaat passeef bi ñu si demee ak yéene bi ñu si demee parce que dafa nekk xew boo xamante ni lu ci waay def sa bopp nga ko defal te su yàlla dimbalee ba nga mën see barkeelu da si war a góorgóorlu bu baax donc yee salaat passeef boobu ak yéene boobu ñu demee si wàccaayu gàmm gi ñu ñaan yàlla mu yóbbu ñu si jàmm ak salaam yàlla defal ñu si njam si wàllu organisation bi nañ ko bëggee mu wees suñ jot euh, comme ni mu ko waxee euh, xew-xew bi mooy tamit sama affectation Dakar ma war a dem Dakar comme gouverneur Dakar ñu jàpp ne peut-être semaine prochaine suñ génnee màggal gi dinañ installé dinañ ma installé Dakar installé gouverneur bu bees bi fi ñëw ma waxoon nag li occasion la pour ñëw yëgal la ko xëy na yënga ko sax mais yëgal la ko sama bopp euh, tàggu la tànnal la samay loxo nga ñaanal ñu euh, ba fee ñu jëm yàlla dafa ñu ci ndam qualité bi autorité yi am ba yóbbu ma fa seen yaakaar bañ a tas yaakaaru doomu dakaar bañ a tas ak képp ku nuy liggéeyal te xam ni ndam li bu fekkee mën nañ ko waxee noonu ndamu kawlax la parce que suñu la nomee dinañ la wax lu tax ñu yóbbu la foofu lu tax président am qualité li mu gis si yow si qualité ak liggéey te loolu suñu ko seddalee ba am xelam tàbbi suñun mu yóbbu ñu Dakar c'est parce que Kaolack lañ ko amee Kaolack nag di suñu dëkku xol waaw loolu moom loolu la yàlla dogal xëy na bu may indi fii sax amoon naa opportunité dem Saint-Louis ndar mais dama tànn Kaolack ñëw fii euh, ndax fii laa tàmbalee il vingt quatre ans léegi ñu dugg si vingt cinq ans yi fii laa njëkk def sama ñaari post yu njëkk adjoint développement adjoint administratif te sama carrière vingt quatre ans jëm vingt cinq ans daanaka soo si génnee li ma def Saalum ndara du si des donc pour dire ne doomu Kaolack laa demu Medina bàyyi la parce que bi ma defee fii juróom-benn at yàlla dogal na ni ma démarré département Koungheul maa fa njëkk nekk préfet def fa ñeenti at ñëwaat def Malem Hodar un an et demi loolu déjà muy fukki at ak benn ak ñaari at yu ma defaat fii comme gouverneur muy fukki at ak ñett donc soo ko génnee si ñaar fukki at ak ñeent moom daanaka carrière bi lu ëpp Saalum laa ko defee. loolu lu tax ma fàttali ko rek mooy maanaam suñ ko mënee waxee noonu waxin la kër gi dama ko xam xam naa ko bu baax parce que maa ngi fàttali Baye Mamoun ni ko ba may nekk adjoint. Euh, gouverneur Souleymane Ly bàyyam bu tedd ba sëñ Mamoun na ma daan booleel ñuy ànd di liggéey si gàmmu gi boobu réunion nationale amagul ay CRD lañ daan def gouvernance man maa ko daan présider donc pour te ni kër gu ñu kër gu ñu miin la kër gu ñu xam lan te xam nañ li fi nekk waaw xam nañ li fi nekk donc moo taxoon ñu waxoon tey dinañ ñëw gis la tàggu la tàllal suñuy loxo nga ñaanal yàlla defal ñu ndam fa ñu jëm Eh, ginnaaw bi la ñaanalee yàlla yàggal la fi dëgëral sa taxawaay te mu ànd ak wér dénk la njaboot yi comme ni mu la ko waxee dénk la suñu bopp waaw parce que jullit moom maa ngi koy wax sànq ñaan mooy gàllaajam te loolu yéen lañ si yaakaar waaw léeg-léeg ñu am ay performance yu ñu def ay résultats yu ñu def waaye souvent damay wax préfet ak sama collaborateur yi du suñ njàmbaar waaw yàllaa siy teg loxoom rek te yàlla moom su si teg loxoom si ñaanu euh, waa gaa yu baax yu mel ni yéen la waaw loolu tamit xam nañ ko donc pour wax na rek li am solo cuun wax na ko dañ si doon dolli lool rek surtout di dalal seen xel si wàccaayu gàmm gi ci fi ñëw tamit euh, nekkoon na fi adjoint gouverneur Amadou Makhtar Tall nekkoon na fi euh, préfet département Kaolack donc ku miin gàmm gi la taaliba la tamit ku nangoo liggéey la ku yàlla may xam-xam également si wàllu liggéey bi donc jàpp naa ne sax moom suñu mbir mi day gën a jàppandi man loolu laa gëm waaw parce que ku yàlla may la tamit ku yàlla baaxee boole ko ak bi nga xamante ne également liggéeyam ñëpp si d'accord ba maa ngi koy wax ni su ma ko mënoon yóbbaale Dakar dama ko yóbbaale Dakar <laughs> waaw loolu moom lu nu gëm la te moom xam na ni dox naa si wax naa si pour ànd ak moom Dakar mais nii la ko yàlla bëggee donc sëñ bi ñoo ngi santaat kàddu sant la rek ak gërëm yëg nañ jàppale yi yëg nañ ñaan yi yëg nañ taxaw bi waaw ñu ngi koy yëg nañ ko bu baax a baax a baax di sant di gërëm bu baax a baax a baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah monsieur ak délégation bu tedd bi nga ànd ñëw fii mairie na tey dolli ñu yaakaar dolli ñu teranga dolli ñu yëkkatikuy ci bés yi jublu su muy bési bés bési màggal yonant nga xam ne ñun ak yéen ñoo ci em képp ndax ñun ñëpp a em ci bëgg yonant ñun ñëpp ñoo em ci sàkku ngërmande yonant bon dañuy <coughs> ñun ñëpp ay ànd liggéey ngir yonant yàlla muhammad ndax yàlla nangul ñu te bu ñu yàlla nanguloo jàmm ji ñuy am rek moom lañuy am barki dem maa ngi Cameroun maa ngi gis peuple population Cameroun ni ñuy dogee ci sama gannaaw ma xam ne Sénégal la ko donc kon Sénégal réew mu yàlla teral la réew mu yàlla teral la réew yi mu dëkkat yëpp naw nañ ko naw nañ ko ci diine waaye naw nañ ko itam ci leneen ba yàlla xiir ñëpp seen xel aju ci Sénégal loolu yëpp fekk na ay góor añ fi yoo xam ne liggéey nañ ci zaaxir ay góor ñoo xam ne liggéey nañ ci baatin góor ñoo ñu taxawee zaaxir mooy yéen ak yéen ñi nga xam ne yéen a méngoo nguur gi yéen méngoo administration bi yéen nangul seen population fu ñu leen oo ngeen uy leen fa rawatina jotaay yu mel nii nga xam ne yow yëg nga ne da ko bokk ak man man ma yëg ne dama ko bokk ak yow bon bu ma la waxee ne kaay nga ñëw ñëwin bu rafet bii duñ mën a am lu dut kontaan ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk la ak sa préfet bi ñuy nar a bàyyee yal na ñu ko yàlla may mu mel ni yow wala mu ëppale sax incha allah ndax nit lu baax rek ak dooleeku lay ñaan yàlla yàlla may ko ko ñu ngi kontaan bu baax a baax ci jotaay bu tedd bii nga xam ne gouvernement Sénégal ak président de la République ñu ngi encouragé ñi taxawee guddi yi ne ren ñoo ngi yéen a ànd suñu gouverneur a ngoog wax leen lu ngeen bëgg suñu gouverneur a ngoog def leen li ngeen bëgg ñoom ñëpp dañu ànd ci seen kaw dimbale leen protéger leen te liggéey bi itam liggéeyuñ ko pour ñun dañ koy liggéey parce que yàlla moo santaane ne nañ fonk yonantam nañ ko màggal donc man ku màggal yonant waxi yàlla ngay dëggal moo ndax moo la ko sant moo la sant ne màggal ko moo la sant ne bëgg ko moo la sant ne topp ko bon nag bu ñu yàlla santee loolu yëpp ñu nekk ci di ci góor góorgóorlu ànd ceeg suñuy autorité suñuy gouvernement suñu président de la république donc ñu ngi yaakaar na Sénégal dina nekk réewu barke <coughs> waxtu wu nekk ci ci ci région bi mu nekk ak sous région bi bay jiite rek waxtu wu nekk comme ni ngeen ko gisee fu nekk rek moom nañ fay xool ci diine moom nañ fay yëkkatikoo ci diine loolu yëpp liggéey boo xam ne alhamdulilah autorité euh, euh, administration yi ak religion yi ànd nañ ak seen xol dimbalante ak seen xol parce que xam nañ ne dañoo war a kawe dañoo war a yëkkatiku te yëkkatiku ci yàlla rek lañ ko mën a amee comme ni ko gouverneur waxee def naa nangam def naa nangam mais xam naa ne seen ñaan la mais yàlla la ah yàlla moo nekk ci gannaaw yéene xol bu nekk yàlla moo nekk ci yéene xol bu nekk li xol yéene bëgg a def rek moom la ko yàlla di génneel mu réaliser ko ah donc woon yaa yaa ngi dem di nga ñu wéetal di nga wéetal waaye yàlla nga teseeg yàlla yal yàlla ànd ak yow yal na yàlla dimbale say tànk yal na dimbale sa xol yal yàlla dimbale sa roxo yal na yàlla dimbale sa loxo ba lépp loo def rek muy càkkutéefu population Sénégal ndax ñoom nga bëgg liggéeyal donc li ngay def yëpp yal na ko peuple bi nangu te yal na ci gis njëriñam yal na ci gis boppam yow tamit yal na nga gis sa bopp ne liggéey naa ba ma tolloo ci liggéey yàlla teg ma liggéey uruju def naa li ma yàlla sant ci sama peuple yal na ci yàlla gën a dëgëral yal na ci yàlla gën a yokk seen fi bàyyi préfet yal na ko yàlla teg ci tànk yoo xam ne boo ko dénkee boo ko boo boo ko déggee di nga di nga gërëm waaw ah, moom tamit bu la déggee gërëm eh, eh, yéen a fi nekk comme administrateur yéen a am réew mi ci zahir ñun ñu ngi ànd ak yéen rek ni ngeen bëgg ñu doxalee ko ngeen doxalee ko noonu rek ci la ñuy nekk parce que duñu uteeg suñ autorité duñu uteeg suñ gouvernement duñu xeex ak ñoom au contraire dañuy ànd ak ñoom di dimbalante ñoom luñ gis ne ni dañu war a def rek noonu la def monsieur le gouverneur ak monsieur le gouverneur yow tamit hmm? noonu ngeen gis ne noonu la defee rek noonu la ñuy doxalee yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla yokk leen comme ni nga gisee nii rek di jox tey ñëpp a ngi nii toog kontaanee toog ak seen i kilifa ci àddina ñoom ñëpp a ngi toog noonu lañ noonu lañ leen tekki seen foofu lañ leen teg suñuy xol ñu ngi yaakaar itam di leen ñaanal. yàlla defal leen tawféex ngeen mën a liggéey pour seen peuple ngeen mun a liggéey pour population Kaolack population Dakar population Diourbel foofu Sénégal nekk rek yàlla na yëg ne am naa ku may liggéeyal ah, am na ku may liggéeyal pour sama réew am jàmm am naa su ma ku pour suma réew am ndoola ndoola ah yal na yàlla def ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi gërëm président de la république ak gouvernement am ndax yii yëpp ci santaaneem rek la ah, ñu ngi koy gërëm bu baax a baax Euh, jërë ngeen jëf alayka salaatullahi thumma salaamu fa